jom dëgg dëgg duma si wax voilà. Hmm. Adja Diallo takk na ngeen xamee ko noonu góor ñi doon nekk di langamaatoo ak yooyu noonu te Adja nag tontu bu civilisé leen tontu nee yaakaar ni maanaam seen jëkkër di mën nañuy toog. waaw yow ah ok. non man yow su ma neexee topp di sa genre yi comme Moussa Fall. Hmm. bu doon topp Adja instant yi nii kon ça veut dire que bàyyi na ko. Hmm. parce que am na jëkkër fu mu nii gaynde bu doon topp Adja fu mu nii da bàyyi parce Adja am na jëkkër Adja nee am na jëkkër depuis 4 mois waaw Adja nan la amee jëkkër depuis 4 mois bàyyi ñun ñuy gain chaque jour su wax ngoon tamit. di wax Ousse li ma toog di sànne boo amee jëkkër di ko yëgle parce que man démb rek bàkkaar naa ak yow Ousse <laughs> démb bi nga toog naa Adja daal daa mool jabul jaww nga daa mool. Ah, ah, ah. mënuñ ci dara. kay. mënuñ ci dara. mënuñ ci dara. en tout cas nekk na nouvelle boo xam ne nouvelle bu neex la euh, moo ngi noonu depuis euh, démb la ko dara maanaam partage si nga xam ne mooy Sina mooy mooy Sinabam donc Sinab bi moom euh, parce que ñu bay na ko topp di ko wax wax donc moo ngi noonu nee na moom nekkul kenn su suis pas deuxième ni troisième ou quatre ou quatrième je benn rek léegi boo leen tëddee na ngeen nalaw. moo ngi noonu donc xam nga lii mooy Binet da ngaa sob rek dañu indi bi xam nañ Adja Diallo alors en tout moo ngi noonu euh, moo ñu annoncé moom marié na euh, ak monsieur Yao donc mu nekk li nga xam ne nii Sénégal yu bëri peut-être surprise day doon si ñoom mu doon li nga xam ne nii euh, mbégte la si ñëpp waaye rawatina ñi xam ne ñoom ñoo nekk ay fans Adja Diallo ngi koy ñaan bu baax a baax sëy bi barkeel lool lool lool moo ngi noonu madame Diao moom Diao Sénégal la ou Sénégalais en tout cas daal. fekk nañ ko ça fait quatre mois mu def ko lépp ci suuf waaye lii nag mooy vrai nëbbu nag nana <laughs> waaw heureux ménage ah heureux ndeysaan moo ko fi sonn nag moo ko fi xaar wax dëgg yàlla euh, ci fàttali gis nañu euh, bërki démboo Ndiaye confi confidence bi mu doon amal di avant loolu sax ay photo ay vidéo yu fuité jëm ci jëmmam bu mhm. doon dund maltraitance ak yu ni mel bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom mu wax loo xamante ni wax dëgg yàlla benn jigéen bëgg ko dund muy violence conjugale mhm. te bokkoon na ci ñu ko doon dund donc góor gi nga xam ne moom la ko yàlla booleel na ko comprendre waaye tamit fonk ko parce que jigéen tuddul jigéen jigéen la tudd mhm. te jigéen du jongo ma rawatina jigéen joo xamante ni wax dëgg yàlla euh, ba mu divorcé ak léegi kenn dégg ko ci lenn lu ñàkk fayda xëy na du ñàkk ay ay rumeur yooyu dégg mm-hmm. te sos moom fi lañ ko fekk te fi lañ ko bàyyi senegal la dëkk waaye nga am jigéen joo xam ne dafa jongoma ci jamono ji yam dafa jafe trop waaw jongoma ba noppi yam mm-hmm. dafa jafe kon soo ko amee da koy téye yërëm ko jigéen dañ koy yërëm ki nga xamante ni dafa bàyyi kër ndeyam bàyyi kër baayam ne yow rekk mhm. kooku da koy téye yërëm ko lum la mën a def it nga dawal yërmaande xool ne ah kii kat bañ ma koy jox dañ ko muur indil ma ko teg ko ci samay loxo je parle en général nag si waaw góor ñi nañu yërëmaat jigéen ñi bu baax a baax a baax a baax parce que jigéen dafa sonn ma moom. Mhm. boo tasee yaa ngi xalaat société bi luñ lay luñ lay xoolee. parce que Sénégal boo tasee pour ñoom bon nga. effectivement da dafa bëgg a bon la ñuy wax. waaw daa kii de daa bëgg a cagatu ji. ñu baal ñu ci kàddu gi bon. alors que yaa ngi dund lu tar ci sa mariage waaye yaa ngi xalaat jugement yi. Mhm. yaa ngi xalaat taxawaayu nit ñi ci sa jëmm. Mhm. ngi xalaat wax ju bari ji ji jóge ci nit ñi di jëm si ci yow. yaa ngi xalaat société bi naka nga fi mën a toogee stable Sénégal fii boo divorcé da ngay instable tu deviens instable parce que dañ lay xoolee bëtu caga nga bëtu ku jaar jàng parce que da ngaa divorcé sëy nga ba tas alors que am na jigéen ñoo xamante ni barke Sëriñ Bamba Mbàkke mm-hmm. ñoo gën a gën kuy gën dégg ma am na jigéen ñoo xam ne ñoo gën a gën kuy gën fa ndox daan taa ba léegi boo demee gis fay tepp-tepp donc su góor amee jigéen ju baax te yam da koo war a téye sàmm ko je disais ki nga xamante ne dafa bàyyi kër ndeyam bàyyi kër baayam ñëw na yow rek kooku boo ko yërëmatul ba ko mu dem boo ko yërëmatul amoo yërmaande ci moom wàccal mu dem waaye am na góor ñu égoïste nag am na góor ñu égoïste non seulement duñ la yor waaye duñ la wàcc. Mhm. parce que dañ naan buñ la wàccee gis euh, dinañ am di nga am keneen ku leen gën. Mhm. waaye yow yor doo wàcc keneen yor loxo bu la bàyyi loxo ngi taxaw di. donc Adja ñu ngi ñaan borom këram gi monsieur Diaw ah. monsieur Diaw. Diaw yàlla na ko. Diaw xaw ma Diaw waaw. yow doo yam <laughs> baal ma yal na leen yàlla jubóole ñu sokkorloo ni asamaan ak suuf donte du am ñu mu neex waaye en tout cas ñu ngi leen di ñaanal. bu baax a baax a baax euh, acte ko defee. ça veut nga sëy ça fait 4 mois. 4 mois nekk célébrité baax la. peut-être mhm. euh, ñu bëri bett na leen. mais mhm. man moom je suis totalement d'accord avec elle si nu ko ko defee. Mhm. waaw xam nga bu sa sëy baree coow. Mm-hmm. rawatina nga doon sëy ak ku ñëpp xam dégg nga ma mm-hmm. rawatina nga doon sëy ak ku ñëpp xam mu def la ñu ne moom de daa weer boppam lu tax mu def lii ndeysaan keroog maa ngi fàttaliku bi muy def émission bi mu ne ñu bari dañ ma doon ŋàññi ci vidéo boobu alors que sama cris de cœur laa doon def dama doon woote wàllu jigéen ñaa ngi souffrir moomoo mm-hmm. te jugement yi la ñuy xalaat Euh, encore une fois daal euh, na ko na ko na ko boroom këram yërëm te it soutenir ko suturaal ko parce que lu xew rek benn faux pas bu ndaw. Mm-hmm. ñu ne xamoon nañ ko bon nangam ak nangam xam nga donc euh, lii dafay wane encore une fois discrétion bi nekk ci moom. waaw parce que waaw maturité waaye discrétion. Mm-hmm. xam nga matu maturité dina nekk ci yow sax te te te doo am bàmmeelu biir. Mm-hmm. loolu day am. am na ñoo xam ne ay magum jëmm lañ mën a def lu baax mën a wax lu baax waaye bàmmeelu biir mënuñu ko amuñu ko. Mhm. fi mu toll nii lu ñu dégg dañ koy wax lu lu leen dal balaa guddi foog ñu génnee ko. am danoo am problème boobu. Mhm. waaw donc nit nag su fekkee ñime naa suturaal boppam. parce que ba tey ci émission confidence boobu mi ngi naan laataa vidéo yooyu di génn ma doon woote wallu laata vidéo yooyu di génn mhm. dund naa lu nekk gis naa lu nekk. ci Sénégal. waaw metti donc euh, mu doon loo xamante ni daal wax dëgg yàlla dañ ko ci ñaanal encore une fois di ko wax moom it na muñ jigéen day muñ. waaw surtout loolu. waaw jigéen day muñ. muñ te du lenn luñ la def rek. nga daal di génn wax du du du moom sax doo doonatu luñ koy jàngal parce que ki ki ki xam baa xam bu kooku ak ku ma nëbb seen quatre mois Sénégal xamuñu waaw waaw waaw ba noppi Euh, euh, gën a jaar ci lu gën a metti te mm. waxoo ko xëy na dernier moment ba nga sonnee loolu ñu naan euh, naar bu sonnee wax olof donc waaw <laughs> naar bu sonnee wax olof <laughs> donc donc xëy na xëy na waaye ku ku jaar ci lu méttee méttee métti kooku mën ngaa denc leneen mën ngaa muñ leneen donc yàlla leen yàlla jubóole ñu am njaboot gu bari lool te barkeel ñu sokkorloo ni asamaan ak suuf yàlla may leen njaboot gu bari lool te barkeel encore donc macha allah. waaw jërëjëf merci beaucoup Nana Ousmane fu mu toll nii euh, xolam moo tooy parce que. dafa bëggoon Adja xar Adja takk keneen takk ko. bëgguma ko de dama ko xeme bu dee xemem tef moom mu sama diggante ak moom. <laughs> moo tax instant mu triste. Ah, léegi man mun ma koo ko laaj sa question bi. parce que tu ma laaj te mu jooy fu mu toll loolu moo tax. xanaa fu ne jooy ma mais du Adja. waaye fu ne. mu fi. fu ne waaye. elle bien. elle bien. tey ma wanaat ma kii bi binet ma liir. kan kii nu wax. bien wanaat ko Adja Dia lu mu bind. Euh. alors moo ngi noonu gis neen euh, moo entendant ma la koy liiraatal sax fu mu gën a kii dégg ngeen ko euh, am na sax ku ko laaj benn question u ne ko Adja j'espère que ñu nekkoo di ñu nax rek te yàlla yàlla na sëy bàkke mun ko jamais sëy du foo mu ne et pour arrêter mhm. waaw voilà ah, waaw boobu boobu tàllal ñu loxo man damay liir da ngay liiral et maintenant pour mhm. arrêter waaw tàllal ñu loxo mhm. vos bêtises là oui je suis marié mhm. depuis je cherche le mari de personne de personne mmh. et jëliwuma kenn je ne suis pas deux ni trois ou quatre je suis benn rek ok léegi bu la boo leen tëddee nelaw leen c'est bon maintenant je suis marié maintenant mhm. wax bu ma gëmul j'oblige personne à rester si sama snap tu m'aimes tu restes sinon tu me bloques et mu jeexal et jeex. Mhm. et encore une mhm. fois. j'ai pas mu ne. Mhm. man de un de un. beneen bi bind na ne euh, jamais sëy du foo lañ ne ko est du nax quoi sëy bi est du da ngay rek foo. mu ni jamais sëy du foo. et c' depuis quatre mois. Mhm. waxuma leen dara parce que c' est ma vie. mais nag waxuñu waxuñu moom tuuti tuuti tuuti ma wax la waxuñu dara parce que c'est sa vie nangu nañ ko. waaw xëy na est-ce que du woon takk suuf ba nga xam ni fu mu ne nii nag war nga ko fësal nga hmm. jugaat lu fiy nëbbutu ci ñoom amul lu fiy nëbbutu ci ñoom même bu doon ñaar ak ñett lu leer laa lay wax xanaa mu doonoon takk suuf. ba bëreet nag ñu am ay mbir nga saña nag léegi taxaw pour assumer ay mbir man ma gëm parce que xam lu tax mm-hmm. li nga ni moom moo ko wax Seydou caaxaan te bu bën te bu tey ba ci benn rek lu ne maa ngi koy wax ci jëmmam ji bu génnee ci xemem tef ngay dégg yooyu yëpp nga mm-hmm. nangoo taxaw dëgg la nag amul ay xel gëmuñ waaye ñu nit ñu nit moomoo benn ba euh, benn côté dofam sëy lañ koy ñaanal ndax démb maa fi taxaw ni jigéen mhm. loo farantu farantu sa jëkkër ji daal gën lu ne mhm. maa la bu fekkoon takk nañ ko quatre mois moom moo xam nga ci dara xam naa ci dara ñeneen xam nañ ci dara lii kañ sama baat ci kaw fuñ ma ci woowit ma wuyu buñ ma ci yóbbu yóbbu ma man maa wax lii gëmuma ko am naa ci droit lii mu wax gëmuma ko man bu dee moo ko gëmuma ko gëmoo ni takk nañ ko ma ni takk bi def na quatre mois wala bu defee quatre mois it takk suuf la woon xanaa ñu nëbb <laughs> léegi nga xam ni fu ne nii nag buut gaa yaa ngi tàmbalee xam suspense a ngi am nga ne xaaral ma génn ne téel pour nga xamante ni lu am du bett kenn ok parce que moo ngi koy wax naan euh, maa leen euh, quatre mois waxuma leen dara parce que c'est ma vie mais nag comme que yéen da ngeen ëppal ma wax leen ko mu jeex jigéen ñi et jigéen ngeen. ñun tëdd waa léegi bu dee. soxlawuma mari personne léegi danoo ëppal am naa sama bos. léegi danoo ëppal danoo ëppal ëppaluñ dañoo ëppal ëppaluñ ñu ngi dugg suñu yoon lu nekk tey la ko gis tey la gis suñu ëppal. mais wuy ma wuy ma moom da may déglu fii tuuti. tey la gis suñu ëppal. waaw maanaam tey la gis suñu ëppal parce que xam nga lu tax. Ah. TikTok bi mu signalé ne amu ko. TikTok mu ngi doon toj ak vidéo am te mosu ko wax. non mais sa taxawal après la moom lu leer laa lay wax. moom ñu ngi fi waay. non a chaque fois damay gis. muy muy génn naan. waaw loolu loolu loolu après bi say bi say xoolal xam nga loolu kañ la. bi say image demee nag ba fees ba nga xam ni bu dee bës booy ut wala pour ñu di kaay di la bàyyi xel mu ngi fi mais ñooñu nangu nga accepté ak ànd ak ñoom bañ bañ jël sa image sànni waxuma naa nag da nga ànd ak ñoom ba mu porté nga daw ci sa sinam ak feneen ak feneen pour garder say mbir ndax démb moom moo yàggul tamit te am na lu ñu fi fekkee tawfiix ñun nag buñ sañoon wax dëgg fa yàlla jàmm ak salaam rek lay am mm-hmm. te yàlla na ko ko yàlla defal yàlla na ko yàlla may jàmm ak salaam bu dee daa am boroom kër mm-hmm. yàlla na ko yàlla jiboole ak boroom këram na ko boroom këram téye na ko borom téye këram sàmm te xam ni am na ku ñëpp xemem yaa ngi déglu mu xam nuñ koy sàmmee gënu fi nag jigéen ñu baax ñi kii wax na ko jigéen ñu baax ñi rek a nekk Sénégal doon ay sëykat. Mhm. jigéen ñu baax rek a nekk Sénégal doon ay sëykat fu ne nii balaa ñu laa may visa nga doon joué katu série wane say taat. Mhm. ne fugg mu jëm ca kaw deux mois ñu ne am na visa tukki na mu ngi dem Dubaay ko ñëw. wane sa beauté fu ne nii de un. ñi yor xëy na di jàppale nekk ci feneen ak feneen ak feneen jàppale wuñ ko amutaat jàppale wuñ ko siiwu jàppale wuñ ko rafetul. waa Sénégal waaw moo am ci dëkk bi fii ci dëkk bi. billaay dëgg am ci dëkk bi moom gënu fi ëpp fi taar gënu fi balak à nag mun neen ceene nii quoi comme yi gaa yi di def ceene eh, oh, par par que loolu affaire de kaf la mbégte. Mm-hmm. mais bu ñu jëlee ay kaf teg Sénégal ay jigéen ñu am dignité fi ne. jigéen ñu am valeur xam valeur mën a sëy tey ay bañkat mhm. waaye kenn nawu leen parce que nekkuñ ci mbedd bi di wane seen taat mhm. duñ ay nitu milieu dégguñ leen ci lii wala dégg leen ci lii jigéen ñu baax rek a fi ne doon ay séyaan doon ay séyaan doon ay jàmbaar mhm. torop newuñ kenn nangam nga wala sàngam waaye ay jàmbaare nekk ci dëkk bi yor seeni teint noir yu kenn xamut yor seen xeesaa yu naturel. waa ñu xees moo ñu gën a. ñu waaw waaw non non waxuma ko sax moomoo bëgguma sax. Eh, ñun xees non waxuma kii waaw waaw xees non dama dul bëgg sax moomoo du dugg foofu mu mel ni ay ay tendance wala ay mu wala ay séparation wala di ut kii dama la ne xamal ni. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni ñu ngi fi ñuul yor seen noirceur d'ébène nit ñi bëgg leen comme c'est pas mm-hmm. noonu la amee ci ñu xees yi am ci timpi tampa yi am na ci koo xamante ni tey dafa. dafa yor ñaari couleur oui ma dafa yor ñaari couleur doon mannequin nit ñi di ko dund am na ku ñuul kukk doon a mannequin ah. am na ku xees bañ naan pour la doon a mannequin ku ci nekk sa image dafa am lu lay jox mhm. yaa ngi comprendre nga ci liggéey nit ci war a liggéey war a def ni war a defee waaye ma ne la Sénégal jigéenu jàmbar yi dafay bëri mm. waaw jigéen ñi mën a sëy daf fee jigéen ñi doon ay guerrière daf fee bëri jigéen ñi seen jëkkër di jox deux mille francs ñuy jaayee ko ñëw pour yokkal ko trois mille ci dépense am daf fee mhm. jigéen ñi bañkat yi daf fee bëri. moomu. dëgg la bu ñuy joxe ay médailles wala bu ñuy joxe ay mbir duñ xool jigéen ñi doon jàmbaar ay influenceur lii influenceur lee influence déedéet. dañu xamante dëgg parce que lu baax duñ ko bëgg a gis ñun en général fokkat yi lañuy ñuy gën a bàyyi xel. suñu fokkat yi lañ gën a ne ñoo fi nekk au top buñ jaxasee wax ji concours alxuraan ngi nii semaine bii di ñëw incha allahu rabi dafa war a am CICES. CICES CICES bii mooy euh, bu euh, waa kii la. sax bu seen boobu. boo xamante ni ñëpp la. semaine bii di ñëw incha allah dafa war a am si ses samedi bi quoi jàpp ma ko te 8 novembre bi dafa amaat beneen. incha allah dégg nga ko ci réseau yi. dégg nga ko ci ñi influence non non parce que lii la ñor waaye merewul leen ci tamit te diggatuma leen ci am nañ ci droit waxuma kenn da nga ko war a def de. Mm-hmm. waxuma kenn danga ko war a wane. Mm-hmm. waxuma kenn aussi da nga ko war a loo xel non non mm-hmm. man de sama page TikTok ba ma am maa nga ko fay yëgle. fi ma ko mën a jaare maa ngi fa yéeg ne ñetti cant yi ma mujjee jëm yëpp bu ma jëmee ne micro naa xam kilifa ma gis ne mën nañ cee jàpp it maa ngi leen koy wax hmm. loolu sama domaine la te new ma kenn wax ci waxuma kenn ne it da ngeen cee war a wax par force déedéet hmm. waaw dama la bëgg a xamal ni carrément yi fi nekk en général dëgg dëgg dëgg dëgg kon nañ leen jàppale bu baax a baax jigéen ñi nga xamante ne ay ay ay jigéenu valeur leen hmm. doon ay jàmbaar di xeex di góorgóorlu ñoo yeewu cinq heures du matin dang dangi ñëw dimbali njaboot doon ay sayaan d'accord bokk ñëw ñi nga xamante ni six heures du matin la ñuy tëdd wala huit heures balaa ngaa yeewu dix huit heures yaay daawal oto de yow la ñuy bàyyi xel yow la invité ci plateau bi de yow la ñuy def ay référence de jàmbaar yee nag yal nañu yàlla suturaal. jërëjëf moom noonu am na solo alors euh, lu ñu war a waxtaanee fu mu toll nii uff jeex na. <laughs> kii du ma bàyyi ah <laughs>